salaamaaleykum Poutine naa def yaa ci jàmm naka yi tey on a besoin de ton aide Sénégal <laughs> wallaay Achim on a besoin de ton aide woy ma amoo foofu benn bombe nucléaire rek nga sànni ñu ko ñu dee ñun ñëpp ah s'il vous ñun kat suñu yaakaar ji yëpp tas na suñu yaakaar ji yëpp ngi ci kaso bi ci bu pare boo fi amee benn missile lekk wala benn bombe atomique yow it balancé ñu ko sànni ñu ko ñu ànd faatu ñun ñëpp s'il vous plaît Sénégal soriwul Mauritanie boobu ci carte bi di ko gis waaw côté Mali noonu rek sànni ñu benn bomb yow tamit nag bombardé ñu ah. xool ba da nga sóoraale Gambie ngi suñu biir de sóoraaleel Gambie booy sànni bul réfléchir nag yow tibbal rek sànni <laughs> wallaay asib boo ko defee rek yow rek lañ ci yaakaar de yow lay xaar dégg nga